mbégte mu rëy ànd euh, ak yéen ci rajo Futur Média am mbégte mu rëy ànd ak yéen ci xalaas ni ñu ko baaxoo lundi ba vendredi euh, Mamadou Ndoye Bane maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar sa sama waa ji di bu baax a baax di ziar passe partout di sa sa bi fu mu ne moom. ma nga ci ak euh, nu mu tëdd ja. Cees kaay Aba Soja. Aba Soja waaw ma nga ci Aba ah, Soja. wax dëgg nag réew mi soxla reetaan. Ah, ah. fi mu nekk dañoo commencé Ndoye Bane. waaw. ah loo leen ah yow it gan gi fi dugg si bëgg yeewi bay ah eh, eh, ko fekku fi gan yu gën a garaw ah corona bi. waaw corona bi kay fekku fi lu gën a garaaw. barke Rusulaay fekk na fi lu fi gën a garaaw. donc bu doon suñ ganuk bopp d'accord naa. waaw bu fekkoon ne ñun ko moomal suñu bopp. ko gérer suñu bopp. Ah. mais ay nit ñu ko indil ñun xamuñu ko. sama gars yi nañ xàppi ree ki nga nit. <laughs> benn yoon lay dee. ñaama mhm. laaj daal fu Aba nekk. waa nee naa la ma nga Thiès. Ah. di préparer Aba show. parce que réew mi soxla reetaan. Ah. ca la nekk. a ah, waaw xanaa newuñu di ko ku ne ku ne toog dëkk ba mu ne en attendant. <laughs> non réew ma nga nekk lu muy déplacé wu. Sénégal dégg ko fenn fuñ quarante <laughs> ku nekk te toog réew ma nga nekk la wax. non Abassou daal jaaxal lañ ko rek. mais ba yaa ngi ci jàmm. ñi ngi sant Serigne Touba rek ñi ngi sant bu baax. ñu ngi sant waaw ne ñëpp am jàmm rek Ndiaye. na ñëpp tàllal loxo yi te naan amin na nit ñi am jàmm ak salaam. Mhm. Euh, waaw nit ñëpp am jàmm na la yàlla may jàmm. may lay xewal may lu sutura. waaye gars yi dañuy ñaan am sutura. yal na yàlla yokk yokk sutura ci réew mi. yokk sutura ci nit ñi yokk sutura ci kër gi kër yi. yokk su yokk wërsëg yi ci biir kër yi. yokk wërsëg yi ci borom kër yi. te am jàmm ak wér gu yaram. Ah, na ko sénégalais yi am ci réew mi. sénégalais ne bitim réew nañ ko am njaay bàyyil ma ñaan gars yi. boo màggetee boo màggetee doo neex a xam nga sas Abdou Karim Ba. waaw di génn. waaw émission une heure de temps lay am. waaw bu ñëwee ñu teg publicité dix minutes. mu nuyoo dix minutes. ñaan dix minutes. mu nekk ñaata <laughs> quarante minutes. minutes. tàggatoo dix minutes dix minutes lay jël téléphone fii ci génn ndax ñaan gu bari ak ñaan da nga koy def sa xol. passe partout nuyu la. maa ngi maa ngi lay bëgg Ndiaye néew Amine Ndiaye. ci xol laa ko wax. <laughs> te Ndiaye teraanga la ma xëyee de. parce que rasulilah. teraanga du force. ma ne maay grand frère am te musu benn yoon la ma mos a teral. or montre ba waaye ba montre mi réeree da koo nangu. teraanga teraanga ju siyaar bu baax di siyaar auditeur xalaas yëpp. <laughs> dégg fa ma génn de. waaw. daal nangu ba ma joxoon de. voilà maa ngi nuyu sama gars yi waa Kaaru Fajar. Hmm. ay siyaara ñëpp. waaw ñëpp yal na ñëpp am jàmm rek Ndiaye. Hmm, amiin waay yi ne bitim réew. amiin amiin surtout Amérique. amiin waay mère Emma. Hmm. waaw mère Fatou Gueye Emma kooku moom <laughs> day yeewu déglu xalaas tëddaat. ah mais yàlla na ko yàlla fay. amiin ah. yeewu tëdd déglu xalaas tëddaat boole koog di ñaan. waaw ndax ñun bu ñuy wax ak mag ñi pour ñu yee xale yi. waaw waaw waaw bu ñuy wax ak xale yi pour ñu yeewu la. ëpp ñu fi xel kenn waaye hmm. sañ nañu lu waay dund. ah hmm. ne maa ko dund. Hmm. ñu ne la kii ko dund lii ko ci dal moytu ko. waaw moytu ko madame Diallo may mun a fal caaroy azur la nekk. suñu benn yaay bu baax la. waaw madame Diallo may mun fal. caaroy sànqit maa ngi dégg. waaw suñu beneen yaay boo xam ne. waaw mama Mati Silla moom Medina Baye. waaw Medina Baye waaw mi ngi leen nuyu bu baax. ban waaw. démb ci xalaas dafa am fu ñu nekkoon. njaay balaa démb ci xalaas man gis naa benn waay bu def ci YouTube bi benn vidéo boo xam ni man metti na ma trop. Hmm. mooy kii yor xaalis bi naan xale bu jigéen bi xale yu jigéen ñëwul ñu def nii. Euh, xaw ma lan. moom daal xaalis la ma yor. Hmm. day ñëw fekk la nga taxaw. muy def genre vidéo caché caché yooyu. naan ko may ma benn maanaam nañ dem def fi saay mm, saay daal ma fay la. di ko proposer nit ñi daal def ko benn vidéo posté ko mais je je trouve ça vraiment. c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas la première ah, na xoolaat li muy def quoi fii dëkk bi mm-hmm. Sénégal du dëkkub tubaab. Mm-hmm. ñun dafa am dañoom ay valeur kenn bañul ko def vidéo ne mais nañ ko jéem a sellal te rafetal ko. kuy tiit di def dara la nga xam ne jigéen moo lu jur. dégg nga. jigéen nga bàyyi sa kër am nga jabar am yi doom am ay sœur am ay mag yu jigéen ak ay rak yu jigéen. ku leen daboon yor cinq cent franc ne la cinq cent ngi nii kaan def yi lee doo la neex. nit ñi dañuy xool bu xoolee bu ko xoolee woon rus. parce que ci vidéo bi xale jigéen ñu ngi koy saaga bay saaga yaayam waaw. te dafa yoroon mel noonu boo xam ne paaka lay yor di kar nit ñi. waaw nit ñi di daw c'est-à-dire yooyu c'est non seulement c'est pas sûr mais rafetul. Uh-huh. donc na na bàyyi xel na bàyyi xel a baax. généralement su ma xoolee mbir gis ne lii amul amul lu ma mën a jàngal. Uh-huh. moo ci sori tax yu bëree bëri daf may rëcc. xëy na man gars yi xam nga xam nga gars yi dañ koy capturer. dañ uh-huh. koy télécharger envoyé la ko. pour nga xool lii. bi ma ko xoolee vraiment man damaa rus. li li passe partout wax rek dañu war yow yaa ko wax dañu war a xam ne yi dox bitim réew. doxul fii. waaw da ngay def vidéo cachée. waaw dëppale ko ak suñu aada ak suñu cosaan. Ah, jàngale ci sax. dëppale ko suñu aada ak suñu cosaan. dañ ciy jàngale. mais yenn vidéo cachée nit dina ci rey nit te du ko tey. ah baax na. nit dina di nga wax nit ko am sénégalais nit ñaa ngi dox mais faatu nañu da nga wax nit loo xamante ne ji mm-hmm. foofu lay am crise des sa say mm-hmm. loxo nga ja nga rus mm-hmm. nañu moytu loolu bu baax a baax a baax a baax te xam nga gars yi wuy ma da ngay def lu mel noonu ami supporter de dëkk bi day soo bëggee ami ngay def li ñu weñ ah. gars yi di la supporter yu mel noonu nag ñu may faral di wax rek am na kilifa yu ci war a wax ah noonu lañ ci wax bu ñu ko yëgee ñoo leen war a woon ne leen lii bu dakkul ba leen li ngeen di def. Hmm. ah parce que am loo xamante ko kaañ ànd dem siimi suñu jox la lii. waaw juste rek que yow bëgg nga koo dugal ci internet bi mu am la mu lu mu généré ne ci ay fonds. Ah, xaalis mais loolu ndaxu xaalis. mais xaalis boobu sax euh, baan moo ko tiim nit di ko yàpp xaw ma. moom jarul woon muy sori mën naa yem kañam rek wala biir këram wala yooyu def reportage foofu ah déedéet. waaw ah, baan baax na. ah jarul baax na baan maa la ko ñaan baax na ah, baax naa jox nga ma cër boobu ba. <laughs> Ndiaye. ban démb comme ni nga ko waxee woon. Uh-huh. amoon na benn histoire fi amoon benn xale bu jigéen. boo xam ne ma nga gàmbi. Uh-huh. mais dafa am jëkkër. Uh-huh. Euh, jëkkëram ju njëkk ja xaw ma jëkkëram jëlee xaw ma nu ma ko mën a tuddee. moo fi ñëwoon fii dajeeg passe partout. waxal doxalal yow mii mu daseeloon ci kër gi. waaw waa ji daal moo fi ñëwoon ne dañoo may jabaram. ca Gambie. bon ñoom bi mu bi mu ñëwee nag comme moom moo njëkk ñëw enregistré nañ ko déglu nañ version yëpp démb teg nañ moom waa li mu wax. Mhm. commencé teg aussi ndaw si la mu wax ak papa ji sax kay mhm. waaw comme que ñi mu ñi dafa am ñu ci tudd ñu bari mhm. ñi mu tudd ñëpp kenn ku ci nekk dañuy saisir nga joxe sa version papa ji joxe na version ndaw si aussi commencé woon na joxe version am ko waaw ndaw si nag nee na ci boppam waajee ko may ci waxi ci waxi ndaw si waajee ko may baat man dégg déggoo naa ak eh, ay nit ñu ma wax ni ma ay seede lañ ci ñooñu dëggal nañ ma ko yónnee ma sax ay wax ni ma mën nga koo teg waa ji tamit nee na musta may jabar ji baat waa ji weddi na ko dégagé lépp musu ko may baat mu nee na musu ko may baat ndaw si expliqué na démb ñi dégg na ne ndaw si nee na waa ji da ko jox tuuru mi ko jox du turam mhm. la ko wax loolu lay liggéey liggéeyu loolu maanaam bi mu sëy sëy fii maris maanaam la mu fa doon dund yëpp ndaw si wax na ko lépp kenn ndaw si wax na ko démb may ndaw fu mu tolloon voilà ndaw si nag ci bii ngeen di waaw dafa dem ba fi mu tolloon mooy waa ji dem na ci nijaayam. Mhm. Mhm. ne ko su ma maanaam moom su ma soxlaa dama koy xañ sama bopp. waaw foofu la yemoon. waaw léegi lu ci topp. voilà li tax mu ko daan xañ mu sama bopp ndaw si dafa amoon doom. Mhm. defoon agrafe. loolu moom wax na ko. waaw moom ndaw si wax na ko. def naa wax na ko fay ci kon bàyyi ko mu doxal. um ne nii ne te moom douze mille yi ci carte d'identité am ci turam lañ ko jëlee carte d'identité moo affiché si kii bi nit moo jël carte d'identité am jëlee ko loolu jël jëlee fa xaalis loolu nag c'est impossible mënuñ jëlee sa tur ba pare mu nekk ci sa numéro loolu impossible après si lañ ko dàq foofu noonu bañ ko dàqee foofu ni jaayam bëggut yooyu noonu di boole nit ak nit muy muy def ay affaires yooyu noonu. parce que sama doom bi boobu la waroon fer ñu dugg ci décembre ne ko bu feree damaa bëggoon sama yaay parce que dafay ñëw ngénte bu ñëwee mu yóbbaale ko dafa bañoon ci noonu frère am bu nekk ci village ba mu wax ak moom wax ak moom ba mu ba mu bàyyi ko. léegi sama yaay si la ñëw bu mu ñëwee si ngénte bi jël sama doom bi yóbbu ko sama yaay tamit bu mu ko yóbboo ci loolu maag moom ñoo fa desoon nekk di dund di dund ci noonu yëpp onkulam moo ma daan jox su may dem jàngee ji marista doon jugee ba keneen onkulam moo ma daan jox 5000 chaque semaine 5000. su ma joxee seen pasta dama ko daan ñaan pour jënd daal sa sama daal day dëgg dagg pour jënd daal mi ne ma aw ma te onkulam su ma joxaan 5000 am boobu mille bi dama ko daan yëkkati. jox ko ko chaque jour su may jàngi mu yëkkati 500 francs mu jox ma bu ñu jotee wees du ma jox ndékki mu jigi mu woo oncle am teg teg oncle am teg ñëpp ne ko waaw sama jabar daf may tere sama bopp avant oncle am di wax laaj na ma ma ne ko waaw loolu am na mi oncle am ma est-ce que xam nga ne loolu baaxul ndax diine ak lislaam ne ko man damaa feebar bu dañ ma agrafoon buñ ma agrafé dama amoon problème agra problème bi agrafe bi dafa amoon problème et tout ça ci loolu noonu faju ma noonu la daan sëy ak man affaire bi di météo wax ko faj ma faj ma depuis boobu faju ma te kii faju ma ba pare day bëgg di di ma di ma kiiwee noonu di utiliser noonu fekk yóbbu ma ci kii ni faju faju ma defu ma dara ci jotee ci ba ba comme bañ ci am problème ay deux heures du matin mu génnee ma tëj buntam fekk sama téléphone kese laa téye man tamit ci noonu ma dem kër oncle am fëgg fekk oncle am gars yi tëdd nañ ma dem toog si gardien bi garde foofu si bunt bi insisté numéro ñetteel yi oncle am bi insisté insisté ba muy troisième fois xaw ma quatrième fois la ko door a jël sama appel lu xew ma ne ko man de maa ngi nii diw da laa joteel moo ma génnee jabare oncle am mooy ñetteel bi ak doomu oncle am ñoom ñoo ñëw ci boulanger bi ñoom ñoo ma jël dugg ubbi buntu kër gi dugal ma ma tëdd bi laa tëdd ba bët set puisque kër ga tamit dafa bari nit samay nawle rek a fa nekk te ay jigéen yu sëy ñoo fi nekk bëgguma kenn xawaan moom ci fajar bi buy onkulam di dem julli ji ci jumaa bi laa yéeg si saal bi too xaar ko fa bu mu ñëw ma expliquer ko yàgg naa ko di par ñaan baat parfois dafay bañ si lañ dem tabaski ji bu ñu demee tabaski laa ñëw fii bañ tabaskee ba pare maam moom moo fi ànd bu ñu àndee mu dem bu mu demee la yàggul ma woo ko ñaan ko baat ma ko ñaanee baat nag mu commencé di wax bañ arrangé fi bu mu ñëwee ne dafa arrangé si la jël sama doom fekk ñëw jël doom xale bi sàcc ko yóbbu ko parce que dafa waxoon dafay dem fekk boobu vidé na saagam bi jël sama quelque yére doom saag bu rouge sax teg ko foofu sac au dos nekk dafa jàllale yére yi si xam naa fenêtre bi dem dënkaane ji ko si la jël xale bi dal di daw moom dem une semaine mënuma digérer yëf yi si laa jàll man tamit dem Sénégal toog euh, dem si nijaayam mooy fi laaj ko ana xale bi mu ne xale bi mu ngi si kër gi fekk na yóbbuwutoon xale bi mu ne xale bi mu ngi Dakar fekk na nekk yóbbul xale bi Dakar Diosone la ko yóbbuwoon si benn euh, foofu la ko yóbbuwoon dënkaane ji ko benn village waaw dañoo bëgg nga dellu dañoo bëgg nga def ni magam bi nag wax wax bu rafet magam bu góor ku dëggu sax nit ko ci nekk ak loo mën moo wax ne ne man mënuma loolu delluwaatuma ak moom suur naa ko suur naa na delloo si sama doom man instant bi loolu ma fi indi mënoo nit mënoo jël doomam ba pare bëgg mu delloo yow delloo ko doom bi fekk avant boobu dafa bañu ne du ko indi nijaayam ne ma demal ci police yi boo demee foofu de bu ma demee ci police yi tamit expliqué ñu ne ma affaire xale du police moo koy li tribunal lañ ko ri mais n'empêche que jox ñu numéro am boo ñu joxee numéro am dinañ dinañ wax ak moom jox leen ñooñu woo ko mu ne waa baax na xam naa si la ñëw fekk demagul woon Dakar si la ñëw kii daal demal ak moom si yoon rek ndax man xamatuma si dara man ma dem nekk avant après boobu yaayam ñëw na foofu kër nijaayam ne ko man daal dama waxtaan ak man si njëkk teraanga dama bëggoon diw mu bàyyi diw ndax kan sëy boo xamante ne ni ki nee na bëggatul na ko bàyyi mu uti keneen moom it mu uti keneen nijaayam woo ko ko mën ko defu ko balaa boobu fekkoon na ñoom dañoo waxoon naa indi can muy góor di mayee baat jigéen jigéen noonu la mun a summeeku indi can bi man nag après si laa ñëw ma jël can bi yóbbul leen ko yóbbu ko sama nijaay sama nijaay ànd ak man ñu dem kër nijaayam nijaayam woo moo ko ne moom du laal man fa bàyyi un an ak lu teg dundalu ma xool su lu ma nekk bu mu yégee ne dama am jëkk nag la commencé di def yam di dem fu nekk di dem ni maa ngi sëy sama sëy te maa ngi sant yàlla bu baax alalu ko sàggan moom ko farlu rek a koy for respecté wu ma woon teguma place fu mu ne tase naa góor goo xamante ne góor gu ma respecté gu ma teg place sax jox ma cër waaw nit nag doo ñàkk ba pare ñànki waaw alalu ko sàggan moom ku farlu rek a koy fort. Ah, alalu ko sàgg. damaa dégg ci biir yi wax mu ne. moom ànd naa ak nijaayam. waaw ba ci kër. waaw waa ji. waaw delloo ko can gam ko joxoon. waaw léegi comme moom kay jël nañu can ga kay. waaw mais sëy ba mën na faa yem wala wala ndaw si waxul. mais jëlul ndaw si nee na ma. nee na dañ ni ko. su fekkee da nga bëgg génn sëy bi il faut nga delloo ko. la mu la joxoon dañ ñu koy wax fii lu baree bari. Mhm. ndaw si dajale na la la ko waaj joxoon. Mhm. ànd ak ndijaayam yóbbu can li mais fekkuñu fa waaj. Ah. laaj naa ko waaj. mais bàyyi nañ ko fa. xaw ma ndax laaj naa ko waaj. waaj dëggal na ko mais nee na fekkuñu ko fa déglu waaj dëggal na ko ci éléments yi déglu.

demal nga wool ma sa yaay ne ko man ma ne mu ñëw wuyu si ma parce que plusieurs fois manqué oo nangul ma wuyu si wala su ma gisul d'ici une semaine ma dinaa paas ñu fekk ko Gambie après di jël xaalis nga dem bi nijaay ko mu jël xaalis bi téye ni jox xaalis bi man nii laa ciy am ma yëgu ma man Dakar la ma fekk nijaayam du man la ko jox du sama benn parent boo xamante ni tey nijaayam jox na ko xaalis boobu sama jabar la ñu jël dem mayee ko parce que moom ba mu dafa nekk si buum ba pare di xool léegi passe-partout. waaw moom laa bëgg laaj. waaw hmm. comme yaa ngi fendi lii. waaw luy problème bi. waa ji dafa bëgg femme bi ba léegi. wala dafa dem ba ñeeg gis ne dañooy maanaam euh, honneur la bëgg a laver. Hmm. ndax dafa bëgg a toroxal ndaw si. Ndiaye man waa ji ci lim ma wax. Hmm. ci lim ma wax. nee na dafa bëgg femme bi seen diggante jeex ba pare. mu doog a dugg ci yenn loxo. parce que nee na lancé na procédure de de divorce. woo nañu femme bi pour mu ñëw. mais femme bi ñëwul. mais man dans tout ça que waa moo am dëgg wala ndaw si mu am dëgg loolu ñoom ñaar ku ci wéet xam sa bopp. mais li ma ci déranger ba déranger moo ci mooy am nga jabar sëy ngeen nee na bëggatul moo xam lu ko motiver ba nee na bëggatul dem na toog pendant un nekkatu leen ñaan na la boo dee gentleman dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg bàyyi ko mu dem. non mais pas forcément tout le temps parce que am na. gis nga doomu aadama boo ko dee topp ci meram. Hmm. muy góor di jigéen. Hmm. après ci looy réccu ngay mujj. par hmm. exemple jigéen bu la ñaanee baat. nga topp ko ci mer gi nga may ko ko. te nga waroon a am dal gu toll ne dalal ko. boo ko mayee mën naa jur leneen. góor tamit bu fekkente ne mer daf la jàpp nga nga nga nga may sa jabar baat moom mu topp la ci dem. jamono mën naa dem ngeen réccu ko. mais ñaari daa yàgg. waaw comme comme yaa no fii moom mënut a baax. xam nga dem nañ ci li ma jaaxal mooy lu tax ba léegi ñu nekk ci rek di ku góor ki topp ci ku jigéen ki moom war na ko ginnaaw ku góor ki topp ci di te moom xam na ne àdduna du yàgg ba femme bi dem di ko sëyalaat. Mhm. loolu jaaxal na c'est mhm. waa ji soo déggee dem nee na moom mi ngi uti na certificat de mariage certificat de mariage max na kañ la bi coow li jógee ba mu yóbbu affaire bi tribunal. ci leen ni ko laaj ci leen laaj ndax mos ngeen am certificat de mariage ñu ni ko noonu ñu def certificat de mariage yooyu ñuy wut pour am mën a am du dugal procédure de divorce mhm. boobu la waa ji ut maanaam bi problème bi amee waa ji dafa ba am ay erreur yu bari yu mu def maanaam waa ji mi ngi doog a gis paa bi bi problème amee mhm. papay xale bu mhm. jigéen bi bi problème amee lay doo a gisante papay xale bu jigéen bi fekki ko fa mu ko war a fekk ni ko danga maanaam sama am sama jabar problème paa bi dox na ci ay jéego mënul sotti ndaw si ci boppam man jokkoo na ak ndaw si démb ak yaayam ak ak xaritam cagaam bi ñu xamal ni ma ñoom ñoo seede divorce bi xaw néew ma nag li ñuy wax ñoom dëgg la waa ji ci boppam jokkoo na ma ak moom it démb moom kii ma ay xaritam ñoom it ñu ni xarit yi ñu ni ñoom yëguñu fu divorce amee mais li ma ci jaaxal mooy soo demee man damay ni pour diggante nit ak nit soo demee ba jigéen jël can ànd ak ndijaayam ñëw seen kër bëgg simmeeku jox la la nga joxe woon te pour nga ba ko waa jii di wax nee naa ko dañuy wax waxuma waxi rajo waxuma yi dama lay wax en tant que grand frère. Mhm. xale yi jigéen ñi ci dëkk bi xanaa gisoo niñ mel. <laughs> booy mun ma am mun ma waaw man ko ah, booy xanaa bëgg nekk millionnaire mun ma ankay man ko bëgg tëdd nelaw nelaw yi neex mun waaw man ko ah, doo libéré ndaw si te dem liggéeyi wuti xaalis ut janq ut ju baax ji ci dëkk bi. <laughs> booy xanaa doo noppal sa bopp noppal nit ñi noppal waa tribunal noppal waa rajo bi noppal sa waa kër noppal waa ndaw si noppal ñëpp am jàmm baal ndaw si te dem wuti jabar liggéey wuti xaalis. yoo xamoo ñëg ñëg ah, ba ñu demee ba ñu demee ba police am ci avant lii di am. waaw ba mu dem ba jëlee doom ci Gambie ba ñu dem ci police ak yooyu. waaw fa la ñu waroon yem. Mhm. cest à lii bu guddee ba egsi fii nag wax dëgg yàlla waaj moo fi indi. Ah, comme moom. gisoo ndaw si mooy envoyé noonu message. Euh, jaaxle moo ko fi indi. Mhm. ndaw si waaw mais bon. comme ni wax rek. Mhm. Euh, euh, waa ji jaaxle moo ko fiyandi. Mhm. lii nga ko digal ni mooy wax ji. Ah! maanaam euh, bu la buur bëgg buur buur bëgg laa ko gën. xam nga ndaw si sax dafa may niroog ku am kilifa. mais am na mhm. xale yu jigéen yoo xam ne tey bu ñu la doon delloo seen can. dañ la koy orange ne baa ñu waree la ko. <laughs> fa ñu toog la ñu toog envoyé la ko. envoyé la ko. kon noppi téye preuve yi. waaw ñu góor di fas diggante bu jeexee jeex na. na dem muñi bàyyi femme bi mu sëy doom la leen yàlla boole. Ah. nañu ko toppatoo te xam ne doom na wala mais leneen luñ ci tegaat. Ah, dañuy sonal seen bopp waaw ah, mais mais waa ji. ñu doxal waaw nen doxal njaay ban. nay xaw génn senegal tuuti. waaw ndaw si daal lu mu dund ci bitim réew. moom hmm? benn tar yàq. nañ ko déglu jox ñu. sama yaay dafa feebar huit ans ñu faju faju faju faju faju ba amatuñ yaakaar presque million def nañ ko ci yaramam bi du jóg tànk yi du dox waaye nag terewul nag tooguma fu ma xam ku baax dama fay dem fu ma xam fu baax dama fay dem bii nag moom mujj waaye mosoon naa dal ci bu mel nii waa ji dañ dem ni ko sama yaay daa feebar waa ji ni ñu jox ñu heure ni ñu jour tel dinañ fa ñëw buñ fa ñëwee bu timis passé bi mu jullee timis passé dinañ fa ñëw léegi suñ ñëwee dinañ génnee bu fekkee mos nañ leen def dara dinañ génnee gàllaaj jour boobu ñu dem waa ji ñëw ay timis yooyu même ñooyu ñu wis mu wis kër ga yëpp saafara commencé di jeqi di jeqi ñu ànd ak ay booyam ñuy jeqi jékki jëkk keneen ne jeqi naa garab kii téere ñu ñu ñu tàllal loxo après ñu gis ni loolu téere la ñu naan am na ko ko fi suul jaxase ñoog suñu mbokk yépp ne ñoom ñoo ñu liggéey suñu dëkkandoo yi ni ñoom ñooñu liggéey benn boobu jàll na feeñ na ndax jàpp nañu waaj mais bu bees bii laa lay wax yow dama ni la euh, sëriñ bi dama ñëw expliquer ko sama affaire bi yaay ak yooyu paas waa ji jënduloo ma ginaar ma jënd ginaar ñëw ñaar lañ moom ak booyam taalibeem bi ma ñëwee mu jël ginaar gi ni ma daal koy jat ni ma kaay ma ñëw mu jat ginaar gi teg ko teg ay sondelam bi ma ñëwee mu teg ginaar gi teg ay sondelam ak yooyu daal di jékki booyam bi ma jël si ci biir ci buntu kër gi daal di yéeg bi mu yéegee mel ni kuy dem si néegam daal daal di dem boobu lay jël ay téere gàllaay jël yëpp roof ko ci ginaar roof ko ci taatu ginaar gi laa rax de xaw ma ne nu mu def waaye xam naa ne yëfu soxal la ko def ba doo ko ci ginaar bi après ma ñëwaat mu ñëwaat toog waa ji toogaat mel ni kuy jëkk jékki-jékki ma eh, léegi baax na nañ dem ñu dem ci waañ bi mu mu jàpp loo mu tànk ginaar gi ma jàpp gi mu léegi mu rey ginaar gi rey ko jékki-jékki indi ko fi ma toog mu ñëwee ma indi ko fi ma toog mu daal di teg ko ci kii bi daal di jël paaka xam dënnu ginaar bi mu wàcc ba si taat bi mu jékki-jékki di jeex nee na gàllaaj yi moom moom moom moom lañ def sama yaay moom lañ liggéey sama yaay liggéey bi ci armée yi lañ ko defoon moom ay rawaanam la yónni senegal te yow xam nga ne man nekkuma Sénégal jarul may wax fan laa nekk waaye damay bañ ñu ndax keneen daan ni ko galaaj yi daan ne ma galaaj yi dañ la ko suulal yow ak sa yaay pour dootul jóg yow tamit doo am dara boo ko jëndiwul du baax danga may jox deux cent cinquante mille nana naa nana naa këjëm këjëm commencé maa dóor ku jigéen ñi nañu moytu sëriñu tar yàq yi waxuma sëriñ tar yàq yi laa wax nañ leen may ñu ngi yàq réew mi ñu ngi yàq àdduna mais daal lii la ci nit ñi jóg fekkee tamit mën naa la yónnee xaatim benn xaatim benn kii bu ma takkuloo xaw ma daf ma doon takk pour ma mën kaa jox lim may laaj xaw ma waaye daf ma jox benn gàllaaj ne ma takk ko sa ndigg pour ñaari fan billaahi lazi laa ilaaha illaa ma takk gallaaj gi ñaari fan sama bopp bi yëpp di metti ñaari fan yëpp sama bopp bi di metti di metti ma woo ko ni ko yow ba ma jógee sa kër ba léegi sama bopp baa ngi metti yaa ngi may takkuloo ay gàllaaj mu ne ma waa takka rek yàlla baax na heure bu timis jotee sama bopp bi di metti tey la nekkoon ñetti fan nekkete xam naa boobu man la doon waajal pour bu ma laajee deux cent cinquante mille ma jox ko deux cent soixante mille pardon deux cent soixante mille la ma laaj pour pour ma jox ko ko ba ma ko takkee ba léegi aw ma jàmm tey si jeudi bi mu ne lépp lay leer tey si jeudi bi nag si laa jënd kii ginaar bi ngay gis ni ak sondeer yi tey laa ko jënd bi ma ko jëndee dem yóbbu ko mu ne ma tey naa tekki téere bi jaratul ma koy takk daal naa tekki téere bi jaratul ma koy takk waaw tey la lépp di leer naka ca lépp di leer bi mooy lii sama bopp bi tey naka ne tey mu bëgg ma gëmloo ni jigéen bu taq ci ñun mu mu liggéey sama yaay liggéeyaale ma pour man sama lépp taxaw léegi nag est-ce duma foto xaatim bi dugaloon naa ko ni ci mbalit mi jox na ma benn butéel saafara ma ma teg tamit ci mbalit ma naa ko foto léegi xaatim bi laa bëgg nga dimbali ma nga wax ma xaatim bi xaatim mu lan la. waaw xaatim bi li nga xam ne moom lañ ci doon def mooy pour mu topp ko moom ba ko wax mu def ko. waaw ñaari téere lay doon benn bi dañ koy sëf ci lu diis moo waral bopp bi di noonu muy bopp bi di méttee mu koy métti benn bu takku ko boobu nag daf koy jox mu naan ci sangu ci su ko defoon dana ko toog comme xaj ndax saafara bi day wat lépp luy karawam ak lépp luy weeyam lakkoo ba mu xam am sunguf bi koy boole moo tax ngay gis ko noonu sunguf bi ngay gis ci noonu waaw bu ko paree mu jàpp ko jàpp benn benn jox ko ko mu lekk wala mu naan ko su ko defee rek dana ko topp kom xaj waaw heureusement que wax xale bi bi mu yeewoo ndax découvrir la boppam mi ngi doon sëf bi moo tax bi mu ko dindee rek mu commencé a jàmm ah noonu la demee waaw. Mouhamed Ndiaye moo doon tekki xaatim. 77 157 17. numéro xalaas allo présidence. mën naa tëj tey. Rabat ak Sandaga rue Sans Zoro di festival Victoire président de la République ak biir palais de la République muy résidence du président de la République bi nga xam ne mooy demeure historique située dans le quartier de Dakar Plateau capitale du Sénégal construit en 1900